Samba Jaara ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaaram macha allah gi neex na macha allah c'est bien passé macha allah ñoo nu ñu nañu ziar nañu macha allah ngi jaay tamit fa tabarakallah ñoo ngi am suñu wërsëg neex na trop macha allah. macha allah xanaa doy si moom rek ay macha allah daal ba tabaarakallah soxna si moom daal wax dëgg yàlla man daanaka mosuma fi ñëw c'est la première fois ma ñëw fi amuñu benn problème macha allah ñoo ngi tranquille ñoo ngi jaay ñoo ngi amuñu benn problème macha allah ba tabaarakallah macha allah xanaa daal ñu def daal yokk rek góorgóorlu roy ci Mame Diarra ndax moom moo waral bés bi te macha allah ba tabaarakallah sant yàlla bu mu bare macha allah ñu ngi daal ñu ngi jéem a roy. Mame Bousso Diarra mi maamam nuy dina njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamam